saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba sunu làmb jàngat jëmale ko ca Papa Sow jëmale ko ca sunu papa Bécaye Mbaye jëmale ko ca promoteur yi nekkoon ca làmb ja ba ci yi nekkoon ci làmb ji la mu xamle mooy juróom a ngi nii fi nekkoon doon béy seen waa di def ak dindi di def looleeg loolu mbër joxoon leen bopp xëy nañ ne mes ñii kenn gisatu leen ñii kenn xamatu ci lu ñu nekk ñii kenn xamul ndax danañ dellu si ci làmbam déet kenn rek a ca des di yëng-yëngal mooy la xalif général ki ñuy wax Gaston Mbengue Luc Nicolaï Aziz Ndiaye Mounia production ba ci ñëpp la ñu miin seeni ku nekk ci ñoom juróom ba bay waar jotee bay nga sawaar ba bàyyi fi lu kenn dootul fàtte bu ñu waxee Aline Petit Mbaye action 2000 xel yi dañuy dem ci combat yu yim fi tëggoon ku wax Aline Petit Mbaye xam combat yu yim doon tëggal Mohamed Ndao Tyson waaye moom ay mbir a ko jële ci lamb ji jële ko ci réew mi mu nga ca France ëllëgu Petit Mbaye ci lamb kenn la leeratul Aziz Ndiaye moom it ku tudd lamb ak tolluwaayam faaw nga tudd kook lim fi def muy Modou di Balla Gaye di Eumeu na ci lamb ji bay ci nekk ca leneen ku wax sunu papa Gaston ngi ci lamb lamb ji ku tudd champion yi nekk ci lamb ji seeni jaar-jaar faaw nga tudd kalaaf te mooy boroom kalaaf yi moom la doon kin dala dugg na ci lamb ji bay si waaram ba noppi génn seeti leneen bu dee Luc Nicolaï moom it mën nañ koo dippee l'homme des grands événements moom njiital Luc Nicolaï enko ku tudd roi des arènes Modou Lo faaw nga tudd ko combat bi mu mujjee signé mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé ba noppi dal ci loxoy yoon mennam Serigne moo fi Mbengue ba ci Serigne Modou ba mu jógee ca promoteur moom sunu lamb dafa dal ci président CNG Aline Sarr daa di jukkiwaat lañ bëtiwaat jaar-jaaram depuis ba mu duggee ci lamb ba léegi depuis ba 2020 mu ngi ci lamb ji diirum ñaar fukki ak juróom benn ca ba mu nekkee ci bopp CNG bi ba léegi fukki ministre ak ñett jaar nañ ci kawam bi muy doog a nekk président CNG Ousmane Paye moo fi nekkoon premier ministre Ousmane Paye jóge fi 98 Iba Faye en 2007 Babacar Dia remplacé Mbaye Samba en 2008 Mamadou Lamine Keita remplacé Bakar Dia en 2009 Faustin Diatta remplacé Lamine en 2010 Abdoulaye Makhtar Diop remplacé Faustin en 2011 El Hadj Malick Gakou remplacé Abdoulaye Makhtar en 2012 Mbagnick Ndiaye ñëw en 2012 Matar Ba remplacé ko en 2014 ñooñee ñu lim ci ay ministre yépp ku ci nekk fekk nga fi Alioune Sarr nga ko fi dem combat yu ba na njort bu ne bu arbitre génnee digganteem ak Siteu mu defal Siteu lu metti ñu fommee combat bi ba léegi ku ci nekk yaa ngi sa ruq di li jëndi sa bopp moom Papa li mu bëgg mooy daan ba ñëw dellu siwaat jël li mu moom ci lamb ji ka nekkoon tailleur doonoon fi Modou Modou en 82 ba dellu siwaat ci Sénégal jël si li mu moom ci lamb ji mooy sunu papa Bécaye Mbaye sunu lamb moo xëy dalal ko wax ci ay jaar-jaaram ba ni mu téerisee ci làmb moom sunu papa Bécaye Mbaye bu toogee ci émission ba wax ci làmb sa xol sedd waaye ñi ko xam-xam nañ ne bu toogee ci machine ba ñaaw sa xol sedd jamono joojee ñaw yi fi xewoon daawu leen jaarale yoon taay baas ak anangoog marinière ku ko mës a ñawal nga simil ko sàppo waaye ñukk la ko fi def dem Paris la France 82 ba 89 mu dellu siwaat ci réew mi nekkoon fi reporter ca rajo Walfadjri ba dem fay jóge bokk na ci liñ ko gënoonoo xamee laataa mu faa jóge dem TFM guddi yi Père Bécaye mooy bomb ca lay ëllëg incha allah